yëglekaay yi li ñu xëy tey jile ci suba si euh, Cheikh Diop lañ ci àndal Cheikh ñu tàmbali ak l'observateur ñu door ak euh, l'observateur soxna Naata l'observateur la mu xëyee bokk na ci euh, combat wi na doxoon ci diggante ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé ak itam Modou Lo ni ki démb ci arène national moom Modou Lo mujj jël li nga xam ne itam moom moo di ndam li loo incolore inodore et sans saveur rek daal di dippee nu ni mel am na ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu làmb itam daal nañuy àddu ci mbir mu ni mel ku ci mel ni Zallo itam wax na yenn ci ay erreur yoo xamante ni nag Ama Baldé daal dina koy def TFM euh, couverture euh, médiatique bi nga xam ne itam amal na ko ci wàll wi la couverture royale la ko rek daal di dippee lu ni mel mu ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, page douze bu l'observateur l'observateur itam dikkaat na bu baax a baax ak itam kile di Elimani jëwriñ ji ci la jamono itam lenn ci loo xamante ni moom moo nekk ay adversaire am fii ci réew bu Sénégal bokk na ci njëgum dund gu cher bi njëgum courant njëgum ndox ak leneen ci loo xamante ni itam askan wi bëgg nañ cee jotee te amuñu ko lu soxal itam wàllug euh, mbëkk mi bokk na ci loo xamante nii daal nañ koy euh, waxtaanee wàllu njàng mi ak njàngale mi euh, grève bi nga xam ne itam ñu njëngu ci wàll wi daal dinañ koy annoncé jàppal ne jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàll wi itam ma ngay xupp ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci wàll wi journée morte woo xamante ni namm nañ ko amal ñoom ñooñee nik ëllëg yem ak li nga xam ne moom moo di mardi ci page 5 itam bu l'observateur dikkaat na ak lu ñeel mbirum Sénat enquête sur Cheikh Awa Balla Fall ak bi polémique Euh, du jeu électoral lu nu mel mi ngi ci euh, li nga xam ne moom di page page itam euh, dikkaat bu baax baax ci waajtaay li nga xam ne moom di màggal gi émissaire de Serigne Saliou Thioune les trente beaux ak itam accusation d'escroquerie lu nu mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di l'observateur l'observateur ñu mën ko am ci rond yi wala boog ci li nga xam ne moom moo di kiosque yi ginnaaw l'observateur beneen ab yéenekaay bu ñuy mm-hmm. tàbbi soxna naata muy grève de des enseignants la rek daal di dippee école entre la la mort xam ne euh, moom moo ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi li ca xam ne itam euh, moom moo ca daal di euh, tàgga daal nañ koy xaatim ci li nga xam ne itam moom moo di page sept bu enquête jëriñ ji itam kàddu yi nga xam ne jot na ko koo jëmm lee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàll wi bokk na ci lu ci mel ni wàllu xupp ak yeneen yu ni xeetoo leneen itam ci loo xamante ni ñu ngi ko doon amal ci week-end wi lee mu ñeel aw ndaje ngir indi aw njàppandal jëm ca réew bu Palestine jàppal ne itam réew bu Sénégal ci la jamono la sàkku ci ñenn ci ñu doon amal boobu boobule euh, rassemblement bokk nañu ñu daal di dakkal euh, bépp relation diplomatique boo xamante ni nag am na ko ak réew bu Israël soxnaata. ñu jàll ci le quotidien. le quotidien ak itam Ama Baldé Modou Lo combat wi nga xam ne euh, ni ki démb moo nga doon am ca arène nationale moom Modou Lo mujj féete kaw ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé ñu wax itam ci accident xew ca yoonu Bambilor lu toll ci juróom benn doomi aadama daal di ñàkk seen bakken benn euh, oto bu ndaw marque euh, Dacia ñoom ñoo rek euh, daal di amal loolee drame de l'immigration clandestine maanaam jéey ji nga ne moo xew ca Nouadhibou ci yi nga xam ne na daañu leen jox lim bi ci beneen ab yéenekaay yi. Mm, Le Soleil la ñuy dem. maître Aïssata Tall Sall jëruñ yi nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal daal nay waxtaanee wàll wi loo xamante ni itam daal na koy dëxëñ ci li nga xam ne itam moom moo di Soleil national foofu itam mënees nañ fa lire ay kaddu kaddu ki nga xam ne moom moo di euh, maître Aïssata Tall Sall. ñu jàll ci libération. beneen ab drame boo xamante ni itam gis nañu ko ca Nouadhibou jàppal ni itam gaal googee nag mu ngi bàyyeekoo woon fii ci réew bu Sénégal ginnaaw itam ba mu dalee ci aw doj jam am jafe-jafe euh, ci ay doom aadama yoo xamante ni itam mujj nañoo ñàkk seen bakkan jàppal lim bi lu toll ci fukk ak ñetti ci ay doomi yoo xamante nii euh, mujj nañu cee faatu lu toll itam ci juróom fukk ci ñoo xamante ni ñu ngi yeb woon ci boobule gaal ci la jamono kenn mënu su leen a gis ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, wax yi soxna naata ñu dem ci beneen yëglekaay euh, muy tribune tribune di kat bu baax baax ci lu soxal li nga xam ne moom moo di nomination wu fukk ak ñaar yu membre yu Sénat ak itam coow li nga xam ne boobaak léegi ñu amal lu ni mel daal na koy jur ca diwaan bu Jolof itam lenn ci lu soxal wàllug pëccxoo lañ ca nemmeeku ci diggante ki nga xam ne moom moo di Samba Ndiobène Ka ak itam ki nga xam ne moom moo di Aly Ngouille ci li nga xam ne itam moom moo di euh, euh, tribune tribune itam leen ci ay kàddu yoo xamante ni euh, biral na ko ci mbirum Sénat ba tey moom Bougane Gueye Dany am na lenn ci loo xamante ni daal na koy wax muy mbir mi nga xam ne noonee la njiitum réew mi doxalee jàpp na nag dara du ci yoon ginnaaw tribune beneen ab yéenekaay suñu naataangoo yi Walf Walf dikkaat ba tey ci nomination yooyu nga xam ne itam jur na polémique soxna naata yooyu la nomination tënku ci li nga xam ne itam moom moo di Sénat Hmm, beneen acca beneen euh, mu ñeel euh, les échos les échos itam dikkaat mel ni machine bi ma xaw a euh, indi ay jafe-jafe attaque ci lu soxal ligne 65 ca fa nga xam ne moom moo di ca Maris leneen ci loo xamante ni itam cong la woon boobaak léegi jàppal ni itam Sayer Fall ki nga xam ne moom la ñu njort ne moom moo amoon loolu lu ni mel ñu ngi ko tegee loxo fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu États-Unis Las Quotidien Cheikh bi ñu doon amal ca diwaan bu Fatick moom Thérèse Faye daal nay mobiliser ñenn ci ñoo xamante ni tam ñoom ñoo tënku ci langue politique bi fii ci réew bu Sénégal mu mel ni tam mobilisation bu mucc ayib lañ ci euh, nemmeeku sono naata mm, ñu jàll ci dina Vox Populi ñu jàll ci Vox Populi ak itam jëriñ ji nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu njàng ak njàngale ci mim réew ci la jamono itam euh, grève yi nga xam ne euh, ñi yëngu ci wàll wi naal nañu ko ngir rek daal di sàkku leen ci lu gën a ñoŋ ci li nga xam ne itam moom moo di seen ak nekkin moom jëriñ jilee ginnaaw ko kàddu xupp yi nga xam ne daal dina koy amal leneen ci lu mu wax ne rek daal di oolu ñi nga xam ne ñoom ñoo séq wàll wi ñu amal li nga xam ne moom moo di euh, waxtaan secteur wi nga xam ne itam moom moo ñeel aduk mbalit bi ak yeneen ni xeetoo ginnaaw itam euh, ñetti fan yoo xamante ni itam banque nañ ko seen ak loxo liggéey bi euh, daal nay dooraat son naata source a source a dikkaat ba tey ak njiit mu réew bu Sénégal anam wi nga xam ne noonee la doxale mu ñeel mbirub Sénat ak leneen ci loo xamante ni itam jàpp nañ ne dafa foqati lépp lu ñeel li tënku ci li nga xam ne itam moom moo di chartuk ndeyu réew mi Sonatel. ñu yor Sud Quotidien. Sud Quotidien ba tey ak itam ñenn ci ñoo xamante ni euh, seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu euh, politique daal nay càmbar bu baax a baax euh, lu ni mel la polémique enfle lu ni mel ba tey mi ngi ci li nga xam ne moom moo di yéenekaay wi leen di Sud Quotidien ku ci mel ni Ndiaga Sylla daal na yëkkati ay kaddu Valdiodio Ndiaye itam naka noonu moom Bougane Gueye Dany ba sax ki nga xam ne moom moo di Ismaïla Madior Fall ñaareelu pàcc wi daañu di kaddu gën a faram ku ci nekk li nga wax daal di koy jéppal mbokk téléspectateurs yi ñuy teelu soxna naat laata ñu àddu ci beneen ab yéenekaay mm, record record ak itam combat bu démb bi diggoon ci diggante euh, ki nga xam ne moom moo di Ama balde ak itam Modou Lo moom euh, Modou Lo am ndam euh, ci kaw ki nga xam ne itam moom moo di Ama Baldé nga xam ne itam télévision future Médias lu mucc ayib loo xamante ni itam daal na koy def ci wàll yi mu ñeel li nga xam ne itam moom moo di couverture bañ ca amal xam nga ne ñun ñoo ko doon amal en direct ci Angleterre Tottenham Chelsea ni ki tey la xaar lu ni mel bu 20 jot diggante Soxna Naata Pape Matar Sarr ak itam euh, euh, Jackson Donjon Show euh, derby lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne itam moom moo di page 6 ginnaaw record beneen ab yéenekaay mu di. stade stade ak itam lu soxol li nga xam ne itam moom moo di gayndey Sénégal yi ca club ba ñu nekk ak itam lenn ci loo xamante ni daanaka mel na ni ñuy randu li nga xam ne itam moom moo di la gën a ñoŋ ca seen ak liggéey wala bokk la gën a ñoŋ ci loo xamante ni itam war nañ koo war a mën a amal ci li nga xam ne moom moo di terrain bi Soxna Naata ñu mm-hmm. jeexal. jeexalee ko lañu. Mm, suñu lamb lañu koy jeexalee ak itam euh, Modou Lo wi nga xam ne itam joyanti na bu baax a baax moom Ama Balde xam nga ni itam euh, ci xas-xasloo nga xam ne ñu ngi ko doon amal lenn ci kàddu yoo xamante ni euh, jot na koo yëkkati moom Modou Lo ñëw démb dëggal boppam bu baax a baax daal di conserver li nga xam ne itam moom moo di couronne wi ba tey jile ci altine ji moom Modou Lo day li nga xam ne moom moo di roi des arènes. Mm. pàcc wu njëkk wi ñeel li nga xam ne itam moom moo gënoon a fës ci li yéen kaay xëy fësal soxnaata lan la ñuy waxtaanee. Mm, lamb ji la ñuy waxtaanee tey Cheikh voilà merci beaucoup Cheikh bu ci kanam euh, ñu yëraat yëglekaay yi li ñu xëyee tey alors Moxtaala euh, démb gis nañ ko euh, lamb ji nga xam ne bañ ko